كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سيدي مباكي خليفة الشيخ عبد الأحد نيجي يكتو كادو نيو يو بايكو كوتي الشيخ محمد المنتخى ميغا خامني مو في توغل سيدي توبا تاي سي ñuy ñaan suñ borom bàyyi ko fi lu yàgg lool tam ànd ak wér ba naaj yi nga xam ne am na ko ci liggéey lislaam suñ borom mottali ko ci jàmm mu lay nuyu bu baax a baax di la sant di la gërëm ci sa digg ak moom ndax yàlla da leen a boole démb boolewaat leen tey lépp di waajal liggéey Sëriñ Tuubaa mu lay sant nag di seere ci yow li nga xam ne xam na ko ndax ku la xam ku ne xam ne na sa kilifa gu baax nga Cheikh Abdoul Ahad meloon tànk yooyu noonu la la yàlla melal ci jikko mooy ci dëggu ak yor wenn melokaan ak uk taalibe ak bëgg Sëriñ Tuubaa moo tax kerew ba fi sëriñ Saliou Mbacke bàyyi ca guddi nga dem ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yee salaat sa njëbbal ci moom ne duma fanaano te amub sëriñ kon ku ne xam ne sab dayu taalibe bi mu fi bàyyi ko itam ak Cheikh Sidil Muxtar nga defaat noonu ci kanamam yee salaat sa digg moom mu dénk la lu bari nga rafetal dépp ba dinaa ci seere keroog bis bi ma ko mujjee gis ci laa ko mujj gisee nga yóbbal fa Abdou Lahad Ka mu indi addi tool yi mu yéemu ko lool sant la gërëm la yeesal sa digg ak moom seere sa pëstéef keroog laa ko mujj gis gisaatuma ko keroog ba mu fi bàyyi ko biñ ko taxawoo ba nopp yaa jëkke yëkkati say loxo jaayanteeg Cheikh mu Mountakha ne ko jébbal naa la sama bopp kon ku ne xam na ne ku fi nekk Sëriñ Tuubaa ku ne jox nga ko lépp li nga am kon nag seen diggante woo yàlla na yàgg lool yàlla def itam maam tuuti lu ma ci xam loo mën a seere ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha yónni na ma ci yow wax ma ne ma naa la xamal ne foo ko Cheikh Sidi Moukhtar féete woon fa ko féetale foofu la la féetale ginnaaw bu mu yeesalee mboolem li nga xam ne sëriñ bi dénkoon na la ko da caa dolliwaat def la ngay jëwriñam ci yoon wi lépp lu muy def fas na ci yéene diisoog yow wax ca yow wax ma ne ma moom de li ma ko gën a jàppe ndax naka jekk dama daa wax naan ki ma gën ci nit ñi mooy ki jikkoom wér yàlla def na ko ci moom rek jikko wér la lu mu lawoon rek moo ne ci moom ba ma dikkee ba cee wax la ko nga wax ma ne ma danaa ko xamal ne ko ñëwal nga sabab ba ci moom sa wax ko ko parce que yée fas na maa yéene ànd ak topp ci sa ginnaaw jàppale li ci liggéey Serigne Touba te duma la ñoru mukk kon yéen ñaar seen ànd bi yàlla ko yàlla yàggal dalal na xelum nit ñi dalal na xelum taalibe bi yëpp kon la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké seere woon ci diggam ak sëñ Abdou loolu la yàlla def ci seen diggante dafa waxoon ne ñun ñaar ba ñu yàlla di boole dafa dàq seytaane ba noppi kon yàlla na yàgg lool ba lim bëgg a liggéey sëñ Tuubaa ndax moom ku ne xam ne ni amul beneen yite liggéey Serigne Touba rek ko ko ñor lépp mi itam jébbal na ko Serigne Touba fas yéene wut a geesu lenn lu may liggéey Serigne Touba kon nag liggéey boobu yàlla ngeen ko yàgg yàgg ànd te day ceeg ngërëmu Sëriñ Tuubaa kon bala ñoo dugg ci biir seere yi ay seere rek la ñuy wax ñu ngi nuy kilifa yi fi teew tàmbalee ko ci sëriñ Abdul Fattah mu Cheikh Mamadou Fadil ndax dana ci sànni ay kàddu ndax diggam ak Cheikh Abdoul Ahad ñëpp xam nañ ko sëriñ Cheikh Mbackeem Cheikh Abdoul Khadir mi ngi fi ak rakkam sëriñ Moustapha moom itam dana seere ci Cheikh Abdoul Ahad ndax ñëpp xam ngeen lim xam ci Cheikh Abdoul Ahad ndax Cheikh Abdoul Khadir moom la doxaloon seen diggante kon xam na ci moom lu mat seere kon tuuti rek lay indi ci jataay bi ci ay kàddu bàyyi leen ñoom ñu seere ci wax ji kon fi ñu tàmbalee mooy sant yàlla bu baax di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo fi teewal président de la république Macky Sall te ci ko jiite di ministère environnement maam Thierno Dieng te ñëpp xam lim doon ci kër gi di ko yóbbanteem nuyoo ak cant ak ngërëm ci président ci turu sëriñ bi xam naa sëriñ Mahmoudan mi wax ci turu sëriñ bi dana ci ñëw waaye liñ ci seere rek ci diggam ak Cheikh Mahoud Mountakha ñëpp xam nañ ko ndax ak cofeelam ci diggam moom ñëpp xam nañ ko kooku joxab cëri la te mën naa ci seere ndax yàggut sëriñ bi yónni na ba ci moom yitte joo xam ne yitte réew mi la du yitte boppam ndax moom na kilifaam yi daan doxe rek lu ñu war a wax rek danañ ko dox ci biir ba ñëpp muy njariñu nit ñi waaye njariñu boppam du ko def keroog ba ma fa yónnee itam ba ma àggee ba wax ko yitte ja muy lu soxal ñëpp damaa wax ne ma bala ma def benn jéego danaa ko lijjanti ba noppi lijjanti ko ba loolu féete kon loolu boo ko dee def ngir Serigne kon moom mi fi Serigne war na koo seere ñëpp maase ci xam ne jox na ko cër ba mu ko war a jox sédd na ko lu ko war a sédd kon mi ngi koy ñaanal nam ko ko waxoon mu dégg yàlla suñu borom dimbale ko kàttanal ko ba naal yi nga xam ne am na ko ci réew mi ak li nga xam ne bëgg na ko def ci Touba suñu borom dimbale ko mu àggale ko la koy jortam di nuyu sëriñ ab Samad mu Serigne Souhaïbou ndax bu xasee tudd Serigne Sidy rek ñëpp tàbbi nañ ci biir ndax yoon wi noonu la baaxoo boo xasee ba lim rek da ngay moo tax maa ngi jégalu ci lim bi. sant yàlla bu baax ci bi ñu booleeg Serigne Touba ndax ñun waru ñëw dara. lu may nekk taalibi Serigne Touba ndax Serigne Touba fàggal nañu lépp lu mat a fàggu ndax li am solo nag mooy ñu xam ne la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne koo xam ne boo gënee àdduna ñëpp xam ko boo génnee àdduna ñëpp xam ko diggante bi mënoo fee def lu ump nit ñi benn nag ñu biral ko wala ñu yol ko kon nag li am solo rek mooy fexe ba góor góorgóorlu sax ci ndigali yàlla yi ak ndigalu Serigne Touba la mu waxoon na itam ne in tansurullaha yansurkum mooy sàkkal yàlla aw lay Serigne Touba itam liñ ko mën a dimbalee rek Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa waxoon ne Serigne Touba de ma defal dafa rëy lool ba xawma dara lu ma koy sant lépp lu ma nar yëkkati nag lu mu rëy rëy ba ba ko ko sant ma xool ko lépp di yëfam ma ne naa daw dàkku ceeg bëggam dàkk ko ci bëggam nag mooy in mooy yansurkum wa yusabbit aqdamakum kon nag nañu góor bu baax a baax te xam ne li am solo rek mooy lam waxoon mooy nekk ci dëgg wéet ak wéetali ci ñoo war a yem ndax la jur rek mooy li am solo dañ xam ne doomu aadama ñu ko suñ borom binde kenn mënta fexe ba gërëm loo leen ren naa si xaayatun laa tudd rek moom mii di Cheikh Abdoul Ahad nag suñ borom dafa defoon ci mu xikma ci kor gi fi mujje fekke waxtaan wa dafa yéemu lool daj àdduna ak àllaaxira am ci njaboot ki ñëw di ko yéem ñu ngi ci jataay bi mu ne nit ñi de yéemu nañ ci sama wax ji lool moo ne wax nañ ne di diwoo ma jàngal moom ma moom ñu ko jàngal de yéem na wax ji ndax xam na lii دوليس مانا جانجي جيتين من أقوى خمغة لغنى ور موي لا عين مالنا إلا ما علمتنا كن يؤتي الحكمة من يشاء وما يؤتى الحكمة فخذوتي خيرا كثيرا فالحكمة ضالة المؤمن موتاح أمنا بن برام خم خم بو مغ بو خون اي تومبو يو ام سولو يو خامني جتاي بي وريس نكو تي فاتليكو ndax jataay yii kat du jataayu puukare du jataayu taggante du jataayu ragalante ginnaaw jataay la boo xam ne dañoo woo nit ñi ngir yàlla jëm Serigne Touba ak fàttaliku Cheikh du Ahad ak li Serigne Touba waxoon ci moom kon na ku fi jóge ku ne war ngaa fexe ba jëli fi loo yóbbuloo boroom xam-xam ba dafa waxoon ne nit ñi ànduñu ak seeni xel dañoo topp seen bakkan ndax liñ bëgg rek lañ xam waxaat ne itam nit ñi de loo mën a def ci lu baax ak lu mën a doon danay jàpp ne dafa am sa njariñul bopp làqu ci ginnaaw waxaat ne it ne saa soo su la yàlla dimbulee ba nga am li nga doon bëgg ci àdduna danga am ay xarit yoo xam ne ànduñu ak yow ngir yàlla waaye danga am ay noon yu dëgg yu taxaw ngir jàmbarlook yow waxaatit ne nit ñi waxaat itam ne nit ñi lépp looy def doo leen defal ci lu baax ak lu mu bari bari saa suñu xëyee mën nañ ko fàtte waxaat tam ne nit ñi booy ànd ak ñoom na nga ànd ak ñoom ci dëggu nee na saa su la yàlla defee ngay nit ku dëggu koo xam ne loo wax rek ngir yàllaay tax waxtu nekk nit ñi danañ la waaye nag looy wax rek na yàlla di tax ndax loolu mooy lay mujj waxaat itam ne li ngay dépassé lu mu bari bari bari saa soo xëyee boo ko deful dañ ko fàtte nee na itam li nga dépassé ci sa alal tabax ko ci àdduna ay ati at ci génn guddi walla benn bis mën naa xëy màbbu kon kuy jëfandikoo nit ñi na nga bàyyi xel loolu mu ne nit ñi itam ku bëgg ku néew doole lañu waaye bu dara desul lu may topp ki yàlla ki am kàttan la ñu topp mu ne itam nit ñi loo leen lebal ci lu baax lu mu bari bari doonte dangaa xam li nga am lépp jox leen ko amaana ñu fayale safaan ba doonte lu baax nga leen lebal mu wax itam ne nit ñi loo leen mën a defal dee ko def ngir yàlla ndax amaana ña ngay dimbale buñ demee bay attaqué wala ñuy song yow lañ njëkk song kon lépp lu nit def rek na ko def ngir yàlla kon nag fi may jeexale rek mooy fàttali bu baax la Sëriñ Tuubaa waxul ci waxoon ne nañ yar ndaw ñi te jàngal leen ndax loolu mooy tax ñoo am defarug àdduna ak alaaxira da koo tënkoon itam wax ne ndaw li tollu ci li weesoogu juróom-ñaari at lépp loo ko def lu may buur danga sonal sa bopp ndax buur rekk la mën a doon bu weesoo juróom-ñaari at ba am ba fukki at diggante bi képp ku ci def buur buur dana dal ci sa kaw bu weesoo ñeent fukki at nag ba muy génn àdduna bu defee boppam buur dana dajeeg yàlla buuram borom bi ko bind kon nag na ñëpp góorgóorlu te gën a farlu ci ndenkaane Serigne Touba yi te xam ne yoon wi sëriñ Touba ñag na ko aar na ko waxoon na ne yoon wi ñag naa ko ba dara mënu koo bët waaye nag li koy róor ci biir lay juddoo kon nañ bàyyi xel ca la mu waxoon te sëriñ bi mas ko fàttali dafa waxoon ne ak bëgg akuk ragal akuk yaakaar akuk jaamu bu leen ko defal ku dul yàlla ndax àdduna mi loo fi gën a bëgg te du yàlla loolu dana wëlbatiku nekk sa yàlla nga di ko jaamu te doo ko sañ a bañ te buur boo mën a jaamu te du yàlla nag da nga bëgg ci moom bis dara mu lottu ca dikk fa saa borom ko fa diis boobaa yéen na leen fa fekk kon nag nañ xam ne la Serigne tubaa diggaloon Serigne Matar Samba Diop ba mu koy booleeg ak Cheikh Ibrahima Faty ne ko boo demee na nga nekk ab ñagam ab ñag nag day gën a ñagas la muy ñag kon ñun le Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax rek nit bu jaayee daal te yaakaaru jël ci njëgge lam jaay moomatu ko jaay nañ suñu alal jaay suñu bakkan jaay suñu jëm kon moomatuñ ko Sëriñ Tuubaa ko moom kon nañu Sëriñ Tuubaa gënal suñ jëmm nañu Sëriñ Tuubaa gënal suñu alal nañu Sëriñ Tuubaa gënal suñu der kon na ñëpp maase ci gën a feex ba gën aar yoon wi te lépp loolu na dara na dara ci jigéen Sëriñ aar na boppam waaye nañu ko suñ suñu bakkan gënal ndax Sëriñ Tuubaa lañ yaakaar àdduna yaakaar ko laaxira te fàggul nañu lépp lépp luñ gis ci àdduna ci teraanga rek moo ñu ko defal ndax waxoon na ne defal na len lo xamne bour du len dàq lu muy lek bour du len dàq lu muy sol bour du len dàq fu ñu teede te yere bu bour tegg len kon nak lam waxon rek ne naa jaaniyal mukramu bi tanzili wa zahzahal xulaata bi tanzili kon képp ku bañ serigne touba rek suñ borom dana la ber dana la alak wax ne li man lahu kulliyati ibada hamdi wa man abada sama lepp ak jaamu yalla la képp ku ak man tam suñu borom ta Allah alak kon nañ xamne kep ku juk ngir jema ngagne Serigne Touba sa bop koy def ndax Serigne Touba mbiram neena fang jantou jor lor la kenn mënatu ko fay kon nak kep ku koy jema def du la wessu waye nak la jox suñu waru tef nak ñun moy takku te jël suñu lepp jëbal ko Serigne Touba te buñ nongoote kenn kuy wax Serigne Touba lu ñaaw wala ngay jël len lu ko jëm ci Serigne Touba ndax Serigne Touba doxna suñ digge diggeeg lépp doxna suñ digge diggeeg gàcce dox na suñu diggeeg adduna dox na suñu diggeegu coono kon nak liñ ko mëna fay rek moy jël suñ lépp jëbbal ko alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh